dénk infrastructure ak transport terrestre Massour fay jiite na niki tey ab colloque scientifique nga xam ne dip association diplômé yi diplômé yi génne ci école polytechnique bu Thiès ñoo ko doon amal liñ ci doon waxtaane bokk na ci ni ñuy fexe ba sàmm ak yeesal li nga xam ne moo di patrimoine ci lu soxal infrastructure ak service de transport terrestre mu nekk ndaje boo xam ni dañ ciy sottante xalaat pour que li nga xam ne ñu wax ay infrastructure maanaam tali yi wala les services de transport moo xam ni transport public la ñu xool ban taxawaay lañ ci gën a mën a am pour gën a yokk koom am ci wàllum performance. mais ndaje bi dafa nekk ndaje boo xam ni bu ñu waxtaanee ci yenn maanaam branche bi yenn bànqaas yi dañuy seet nu ñuy gën a mën a yokk taxawaay infrastructure yooyu loolu dafa nekk lu am solo ci wàllum entretien mais aussi ci wàllu tabax yi suñ koy tabax est-ce que ñu defar yeneen matériaux yoo xam ni. maanaam infrastructure yooyu dana gën a baax dana gën a yàgg. waxtaanee nañ fa itam wàllum financement yooyu li infrastructure liñ ci bëgg rek mooy teg ay jéego yoo xam ni dañuy wàññi njëg bi nga xam ni moom lañuy tabaxee yooyu li infrastructure. xam nga tabax tali euh, bëri na ay façon aussi am na ay technologie yu bees technologie yu bees yooyu war nañ ko mën a indi ñu seet nuñ ko mënee dugalee. dans les cahiers de charge pour mën a wàññi njëgu construction yi loolu aussi xel ak xalaat bu fu nar a jógee dañu ko déglu bu baax mën ko seet nuñ ko mën a jëfandikoo. leneen lu ñu doon waxtaanee mooy fexe ba gën a boole li nga xam ne moo di expertise locale wala sax créer ay emploi yoo xam ne ndaw ñi dinañ ci gis seen bopp.